nga xam ne moom lañ dénk wàllum finance wax na ci lu jëm ci wàllum parité bi wax na ci engagement bi nga xam ne jigéen ñi amee nañu ko ci élection locale yi ne moom la ñu génn lu jëm ci wàllum retrouvailles famille libérale loolee tamit wax na ko stade bi nga xam ne moom la ñu tuddee maître Abdoulaye Wade daan na si kontaan loola ma ngi ci yéen kaay gi di réew mi quotidien mën ngeen koo yër yéen kaay gi di sud quotidien ci xën mu njëkk mu ñu fekk fa Alioune Tine daan nay wax ci lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko dañu ko war a ngir nag libéré ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ndax dafa am carrière politique boo xam ne daf ko war a doxal lu jëm ci mbiri Barthélémy Diassa nee boobee dañ see war a génn li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique ñi nga xam ne ñooy laayeen yi ci appel bi daan nañuy woo acteur politique yi ngir nag ñu daal wax jàmm ba pare nag di def jàmm yéene kaay gi di 24 heures nee na alerte ru Sénégal ci lu jëm ci wàllum njëg yi Sénégal ba muy tuule maanaam Sénégal ci kaw la jëm nañoo dem ba mu yàgg suukar kenn dootu ko gisata ci réew mi waaye tamit ceeb kenn dootu ko gis ci réew dëkk bi méttee bu mu bett kenn l'observateur nee na li nga xam ne nag moom la ñuy tabaxee maanaam matériel yi ñuy tabaxee bu ngeen jekkee-jekk ñu ne leen yokk na ba maara day taali loolee tamit bu mu leen bett benn yoon yéen a kaay gi de la ko di ca xëy na ci bureau municipal bu Géejawaay Njoogu Malick mi nga xam ne moo jiite woon fédération PDS Géejawaay daan nañu koy jële ca bopp kuréel googee la ko waral nag mooy dañoo jàpp ne dafa wor ñi nga xam ne ñooy waa PDS ci bureau municipal ya ndax ko waxoon na ko voteelal waa Yewwi Askan Wi ngir nag Ahmed a raw mu a kaay gi xëy moom leen l'info ak Vox Populi nee na yeeyu askan wi ñoo ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne mooy élection législative yi yéen a gi di Walf Fadjri ñu xëy nag fekk fa koo xam ne gëj nañu koo dégg lool lool di Ibrahima Sène bu PIT daan wax ne élection yi nga xam ne moom la ñu génn rapport de force bi nga xam ne moom la opposition bi tegal pouvoir bi rapport de force la boo xam ne bu saf sàpp la te bu ñu waxantee dëgg opposition bi maanaam moo gagné rapport de xam ne moom la réewum Sénégal nekk jamono ji doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne maanaam rek moo ci mën a génn Sénégal te nag retrouvaille bi nga xam ne moom la ñuy wax diggante PDS ak APR Ibrahima Sène nee na loolee nag ay caaxaan la te nag élection yi askan wi nga xam ne voté nañu loolee nag la muy firndeel ak li muy obligé état Sénégal ngir nag mu daal di ak pouvoir bi yéen a gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu am na li ñu leen mën a leeral mooy ci biir gendarmerie dafa am benn kuréel benn amical boo xam ne quarante-septième promotion élèves gendarmerie la maanaam nag kuréel googee ay yoo xam ne quarante-septième promotion la ñoom nag dañu doon maanaam di natt daal jot kenn ku nekk joxe onze mille lañ si jublu nag mooy xaalis boobee bu demee ba nga xam ne bëri na maanaam ñu mën si am nag ay dëkkuwaay waaye nag ñi nga xam ne nag ñoo yoroon kees googee ñoo ko détourné ñaari gendarme lañ nag ñoo luubal ñoo dëpp kees ga kenn ki nag Abdou Kalidou Kanté la tudd kenn ki Omar Diaw journal bi nee na ñooñu nga xamante ni ay élèves gendarme lañ nag toll nañ ci trois cent vingt trois membres ñaari gendarme moo jot nationale jam ñaajo AIBD 207 milliards yéen kaay gi de la Tribune nee na Sénégal yéen ngi seetaan rek waaye Sénégal ma ngi amee bor yoo xam ne maara day tali li muy leb jamono ji dafa bëri ba maara day tali li tax nag Sénégal gi bëri mooy infrastructure yi nga xam ne moom la Sénégal di tabax infrastructure yi liñ koy defaree ci boppam moo cher te jamono joojee mbay maa ngi nii demul ci nga dikkul mbay lara yéen a kaay gi de la Tribune nee na nag bëri na ay tonu soble ak pataas yoo xam ne jamono ji ma ngi yàqu ci àll bi ndax nag état bi amul benn infrastructure boo xam ne jëm na nag ngir ñu nag mën a sàmm li nga xam ne moom la ñuy béyee ci réew mi yéene kaay gii di libération xëy dañu xibaar naan ñu bato engrais bi nga xam ne moom la ñu doon wax ne dañu koo détourné ci port bu na nag ku tudd Atuman Si moom koy tudd ca giraawaali googee waaye nag journal bi nee na juge deuxième cabinet nga xam ne moo yor dossier bi daf koo convoqué woon nag ngir déglu ko waaye dafa lànk kandaare ba ñu ñëw ne mes ne mentañ yéene gi nee na coow li jeexagul ca wàllu woowa yéene kaay gi xëy dañu xibaar jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel gii di MEDES dañu doon amal nag conférence religieuse femme du MEDES samedi bi nga xam ne moom la génn la la nga xam ne moom la fa doon waxtaane mooy giraawaal yi gi nga xam ne moo am ci biir xarala yu yees yi bii nag moo nekk dix-neuvième édition religieuse des femmes du MEDES oustaz Moudou Fall ak oustaz Serigne Gora Diop ñoo ko doon waxtaane ci teewaayu président Mbagnick Diop mi jiite MEDES yéen kaay gi dee sat xëy ci week-end des Lions wax ne Abdou Diallo la ci Paris saint